fil ali wa sahbi wa man wala wa zaki lubbi waftahan rabbi liya fathan mubinan la yura li wa jaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen nuyu di am yéene ju ñëwaat ci liggéey bi nga xam ni sumboon nañ ko te muy ay leeral yu jëm ci xasida ak muxaddamatul xidma fi saada a nabi rahma ak miftaaxu saada bi saada ala xeeri saada ngir di ci liggéey la Serigne Touba di ko ci sàkku ngërëm bu baax a baax a baax di ñëw ci salaatu tey rek comme ni ko sëñ Gueye baaxoo dugal nga sant baax moom ci dugal geeg soññe bi macha allah am na solo lool di ci salaatu tey gi mooy sëñ bi day wax ni allahuma yow sunu borom. salli na nga dolli xewal ala sayidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad alif la mim saat mi nga xam ni daa bokk ci ay kéem kéemtaanam ba bokk ci ay mbiram eh, li ñu tuddee alif lam mim saat muy tàmbaliwaayu saar alquran karim nga xam ni bokk na ci araf yi nga xamante ni borom xam-xam tafsir dañ daan wala alam bi bi muraadihi yàlla moo xam lim ca nam donte Sëriñ Tuubaa nee na suñu borom firil na ko alquranu karim ba firi na laam geeg alif gi ak miim gi yëpp daa wax ni alif yi mooy awrastukal kitaaba dénk naa la ko laqamtukal kitaaba sanaa la ko eh, même ji mu ne ko malatukal kitaaba moom loo naa la sax téere bi faaf ngeen borom kon sëriñ moom nee na nan la ko suñu borom firile eh, kon nee na yonent bi sallallahu alayhi nga xam ni dafa bokk ci ay kéemtaanam mooy alif laam miim ak saat wasalam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa sahbi ak sahabaam ya warzuqni mu ne ko yàlla nag ma wërsëgal man sëñ man sëriñ bi sëriñ Tuuba bi jaahihi ci daraja yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maa loo xam ni maa lahu déet moo déet déet déet mu koy ñeel min nafaatin ci ak jeex mu ne maa ngi lay ñaan ci daraja yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga wërsëgal ma loo xam daal dootul jeex bu mukk dootul jeex bu mukk wërsëg dul jeexati allahumma yow suñu borom sale na nga dolli mu na nga dolli sang ba wa mawlana kay suñu kilifa wa qurrata a'yunina kay suñu sedd xol kay suñu kay suñu sedd ak gisin mooy suñu mooy sedd suñu xol rek muhammadin kay muhammad imaamil xayri kay njiital yiw kay njiital yiw ya te mooy yendu saa salaam mu ne ko wasale na nga wa ala alihi daraja yendu saa salaam liqaahu dajeeg moom ëllëg man xëy am wa jiwaarahu ak dëkk ak dëkk ma dëkk ab dox dox allahumma yow sunu borom na nga doolu xéewal ala sayyidina ci sunu sang ba wa ka ñuy liggéeyal kii liggéey almaxdum mooy ki ñu liggéeyal wa maxdumina ak kamay kamay kay sama dëkkaale kay sama dëkkaale muhammadin ki nga xam te ne mooy muhammad imaami rasuli kay njiital mboolem ñu ñu ni mos a na ma def bi jaay yi ci daraje yi yonent bi ko mën a sellal ko mën a sellal fil i'tiqaadaati ci pas-pas yi ma doon ku sell pas wala xawli ak i wax wala fi'li ak i jëf maam def ma daal ma doon koo xam ne damay sellal pas-pas ak wax yi ak jëf yi mooy wal xawli mooy wax ji wal fi'li ak jëf ji allahumma yow sunu borom sale na nga doole xewal ala sayyidina ji sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad imaamil muttaqina kay njiitu way ragal yàlla yëpp ki nga xam ne mboolem ñi ragal yàlla bu ñu taxawoon mooy taxaw seen kanam moo leen di jiite ñoom ñëpp wasalaam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa saxab yi ak ma def man sëriñ bi bi jaayi daraje yi Yonent bi sallallahu minal muqarrabina ma bokk ci ñi gën a jige yàlla ma bokk ci ñi gën a jige suñu borom allahumma sunu borom salli na nga doole xewal ala sayyidina di sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad imaami nabiyina kay njiital mboolem ñu ñu ndax ne woon naa ci audio yi yi mooy ñu sol rek mooy ku yàlla jox xam-xam te te yónni ko bu ne bu ne bu ne ar rasul nag mooy ku yàlla jox xam-xam bu ko ne na njiital mboolem ni yàlla sol xam-xam ak mboolem ñu yàlla yónni ñëpp mooy seen jiit wasalim naa doole ak mucc alay ci moom wa ala alihi ak ñooñam yi wa sahbi ak saxaabaami wa jaxane nag ma def bi jaayi dara jëneen saa sallam minal muttaqina ma bokk ci way ragal yàlla yi allahuma yow sunu borom sali nanga doole ak nanga doole xewal ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlana kay suñu kii jilifa muhammadin ka muhammad al imam kay njiit ga ka nga xam ne daa bokk ci ay daat darajaam imam la mooy njiit la Eh, moom la ko sëñ Tuubaa naan ko eh, labista si yaabal majdi wala fadli wala wala fii ka mën a axlaaq ma ma aadidal kulla comme ni ko waxee ci muxaddimaat nga xam ne sëñ bi nee na ko la anta imaamu rusuli xad jaa annahum talaaqawka fil israa wal kullu xad salla ñu ne ko boo léegi woon a xiyam mboolem yeneen yi ak du bëgg gaa baax yëpp bu ñu taxawee yow yaay taxaw seen kanam jiite leen kon mu ne ko al imaam boo ko bokk ci ay darajaam la moom yeneen saa wasal na dolli ak mucc alay ci moom wa ala alihi ak ñoñami wa sahbihi sahban wa xini nag ma fegal bi jaahi ci daraja nabi saa sallam makkaa idal am pexem ku ñu rëbb ko pexem ku ñu rëbb ko te mooy pexem iblis rek hmm. allahuma yow sunu borom sale na nga dolli xewal ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad al amiru kay aji digle ji lu baax kay aji digle ji ak njëkk wasallim na nga dolli mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñooñam wa sahbi ak sahabaami wa jaxal nag ma def bi jaahi jërëji yeneen du saa sallam may topp ndigalam yooyee comme que yeneen du yeneen du saa sallam mooy al amir mooy kiy digle lu baax manit nag ma yow suñu ma nag ma dimbali nag ma may ma doon koo xam damay topp ndigal yooyee allahuma yow suñu borom salli na nga dolli ak xéewal ala sayyidina suñu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad al aminu kay aji wóor ka nga xam ne mooy al daal daa bokkoon ci ay turam al amin mooy ku ñu wóolu al amin nag mooy aji wóor wasala noo ci moom wa ala alihi ak ñooñame wasaalu saabaam wa jaxale nag ma def bi jaayi ci daraje yonent yonent bi salaa ma nekk ci suufal lépp loo xam ne tuxib bëgg na ko watar daata gërëmul na ko saa ki nu aji dëkk foofu yow suñu borom daal lay ñaan nga def ma moo ma doon koo xam ne damay dëkk ci suufal lépp loo xam ne moom yeneen du saa salaam bëgg na ko te gërëmloo na ko naa dëkk foofee allahumma yaa sunu borom sali na nga doon léegi xewal ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad amini asxaabi yi kay aji wóor wóori ay saxaabaam kay aji wóolu ji ay saxaabaam wasalim na nga doole ak mucc ale ci moom wa alihi ak ñooñame wa saxbi ak saxaabaam wa jaani nag ma def bi jaahi jërëjëre du saa salaam min xiyaari ahbaabihi ma bokk ci tànneefi soppeem yi ma bokk ci ñi nga xamante ne daal ci biir tànneefu soppam yooyu naa ca bokk euh, dafa mel ni euh, foofu la salaatu yi yam tey bu ko defee ñu ngi taxaw indi foofu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ورمز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكوكب وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه حجاب كل